ak moom ndaama li dëkk fële déedéet mbaaw la xaw xam nga ko ndaama loolu te te dëkk bi gin tuxu mbaaw ndaama ne seen la sant xaw ma nan seen waaw mais xanaa xam nga tur ci bu ko tafaati di jàppe sida <laughs> ci bawol gi gonag ba da gi eh satub Samba Xoyaan bi ngay waxat de ah tey eh satub ngay waxat de jële baaxul de lan eh am seen daane ci état ah, ku laaj weddi laajal laajal laajal ku weddi laajal bu bari ci tiib la ko def loxo ba dam piip loxo ba dam Bombardier waaw eh, fee gis ngeen ko yow ko doon jël bi passé bi passé gis ngeen ko salaamaaleykum dam naa dal ak loxo ba toog six aj loxo bi nii la ko def billahi liir billahi ko ci moytuwul tafatin mi li fi jaaroon ay erreur la de billahi li fi jaaroon ay erreur la te dinaa ko dee daa am secret booy dompar ci man dompar ci lamb maay borom barki Serigne Fallou Mbacké lamb pied boo teg boo teg pied boo teg mo la na na borom la ko ndax mën na ko wala mën a te moom am na pied boo xam boo ko tegalee day mal bëre day mal bëre. waaw am na noo xam léeg am na côté boo xam boo fa demee. Eh. loxoom du jóg gauche ba. Eh. ñun xam na lépp gauche ba. du jóg lay def gauche ba gauche ba rek ay fooram. droite ba droite ba moom comme comme xobu garab bi mais gauche ba moom gauche ba moom comme comme comme comme bâtiment bu daanu moom gauche ba moom bala dalee waaye billahi billahi dañuy jàng ak seytaane rek. di jàng ak waa ba njiiba. man man def ba neexoo ba ñuy ba ñuy li fi jaar lan la li fi jaar jàll affaire Reug Reug du Reug Reug Sa ah, xaalis ba mais xaalis ba man dama cee laaj benn champion mu ne moom yëgut géntu xam nga xam nga ñoom bala moom wax dëgg yàlla nit ku baax la waaw ah, ndax gisaa ba ngeen demee pale ba mu génnee daa téye booy ne ku ne na la na jox waaw xam nga moom wax dëgg yàlla ak lu ñu ko mënti waxal tamit mën nga seede jaara ni kii ku baax la nañu waxante dëgg rek wax sa mbaaxu waaye du wàññi sa mbaax dara wax li nekk ci nit ki généreux mhm. te Balla mhm. ci combat rëg-rëg bi mhm. laa gënee xam ni ak liñ ko wax ñun yëpp ak suñuy doom yëpp mais terewul jàpp ko dara d'accord bi ma gisee wax dëgg yàlla dana ma franchement maa ngi lay bi di féliciter sama bopp ci rëg-rëg loolu góor moo koy def ak grandeur su ko neexoon mën na jàpp lu fi jaaroon na nag ñee nag dañoo jàpp lu tee sol xol dinañ xam ni maa leen billahi di xam ni da ngeen sol ndox ay bâtiment yu sol ndox ngeen seen kii bi ngeen def yépp da di sóob waaw coalition xeex Xaadim Njaay. xa Xaadim Njaay du dem. nga yaakaar ko. du dem barki xam nga lu tax jaar am nañ doole de. maa leen ëpp baat. est-ce que yow wéetoo ci xeex bi. wéetuma ci xeex bi xaw naa ci. kon doo ci ànd ak ñoom Baye ma ñoon ñoom Rëg Rëg ñoom Poosor laa. samay doom day moom Rëg Rëg Ahmed léegi laa mujjee tàggoog ñoom léegi ci whatsapp waaye ma njoon xam nga léegi laa tàggoog samay doom Rëg Rëg ñoom Ahmed Dem xam nga ñoom Issa Pouye ñi ma war a jàppale daal ñi nga xamante ni samay waay lañ te dañ may gunge ci combat bi muy caari géej yëpp bàyyiwuma kenn ñu may jàppale ci xeex bi ndax samay noonu laa ko seqal yow bu fekkee ki tëgg làmb ji moo ki ki mu tudd drapeau bi ñoo boole bokk fi ñu jëlee jabar waaye nañ wax nañ waxant guerre day gën a am. après ñu dëggaate la nappaaje la jaar ci sa kaw boo noppee fii nag bu ñu lay xas leen rek lañ lay xase ñaar rek lañ lay xase seetlu nga loolu bu dee góor gentleman ngay liggéey góor jigéen bi lañ lay wax seetlu loolu rek suñ demee ba xam ne loolu dundoo leen ñu ne la dëmm bi. ñaari yooyu rek lañ la mën a xase. jigéen bi dëmb bi te dama yaakaar ñiy wax loolu nag seen yaay ñooy ay ay waxteef ñi toog di ji ñaate ay dëmm seeni i ndey waxteef yi pour fonk sa ndey doo jël ndey jàmbur naa ko waxteef ku si ku ku fonk bàyyi jàmbur doo jël bàyyi jàmbur naa ko nangam ku mel ni Waly nga xam ne Baye Fall international rasta bi barki sëñ Tuubaa Mbàkke man sax danaa dërëj moo tax ma yar sama karaw ma rasta yu mel noonu laa bëgg vrai gentleman Baye Fall vrai mec waay waali waay cey waali sek cey booy bi waali waali boo jëkkoon nag del baa cet moom cet seexlu na ko ah. man ba ma taxee buntu këram la cet seexlu nga bu taxee buntu këram bët yi gën a fort ci àdduna bu ñu ko doon xool mënuñ ci moom dara barke sëñ Tuubaa del baale waali waali waali il est waali il est beau il il est suruur non waali daal waali daal waali daal lim boole moo bëri ba pare njool ca kaw. xam nga xam nga xaadim la la waale di defar. boykat nag doo doo doo mel ni mongol boykat nag da ngay njool ca kaw. si léegi kan mooy mongol. Ah, siggi ca kaw. waaw nga xam ne xam nga naan magi démb yaa ngi nii waaw xam nga waal yi loolu lañ soxla ci way. waaw kan mooy mongol. ah déet daal man dama cee gis mongol waykat ca kaw. siggi. waaw waaye taxaw ci taxaw di tolloo di di tolloo comme micro yàlla nañ ci yàlla musal ah yaa ngi yaa ngi attaqué guerre nag de. man nag ku dugg ci champ guerre di nga bëgg mu la déedéet ci bëgg a génn mu tëb. barke Sëñ Fallu Mbàkke ndax yow doo jeexal ruq yi ma xam a bëri. man dama xam ci làmb ji xam ci showbiz bi xam lépp lu bari biir biir plateau laa nekkoon. plateau benn benn barke Sëñ Tuubaa Mbàkke. showbiz bi da nga koo téye nii dama xam ci lu bari lu bëri waxaguma ko ci. te di ko ci wax. te dama ko ci wax à cause de nag lépp ci dëkk xam nga da ngay sax benn waay bu dof nekk leeral xam nga di taxaw di saaga naan saaga naa waa juróom saaga waat naa waa juróom ñu jël ko ci télé teg ko muy animé loolu ndax kooku exemplaire la ni tele bu ñu fay teg dañ fay teg ku am présentable mm-hmm. koo xam ne du wax wax lu ñaaw day wax luy boole mm-hmm. xam nga moo tax ñu bëri seetaanoon ci ñu leeral xam nga naan ay la milliardaire xam la lan ak lan jéego xam la lan dof yooyu ñooñu war na télé bu ñu fay teg jaara dañ fay teg ku présentable koo xamante ni li muy wax ku mel ni jaaram yi nga xam ne li muy wax dina ci suur tur yi mm-hmm. mais koo day taxaw dóori boonam jamu fi pikiru suus ah. di volé wu di volé wu ñàkk tey di siit. foo laal day saxaar mel ni liiru jaan. Ah, féppay saxaar féppay saxaar. Ah, waaw liiru taxaw di naan ay sa di saaga wax ma liiru sax liiru du saaga ndax man du moom du saaga ndax ma saaga dama koy ñus. Ah, yow eh, saaga nga ko eh, ma saaga ma ñus ko. te ñusoon naa ko Daara Jolof ba damm ko. dóor pëf mu ne mu yàgg protestant bi laajal journaliste yi ku tëf ma. man waa ki la ko dal nii hmm? laaj leen <laughs> loolu fi la fekk ñëpp di moom xam lu ma singalee rek waaye. waaw léegi man xam nga lu ma bëgg laaj. xaadim xanaa waale daa lu mu compal nag ni ngay taggee waale nii neex na de. xam nga kañ laa gëj a gis bi may ñaanal samay waajur demoon ci moom ne ko waali dama bëgg su ma jógee ci maa dem ci Pape Abdou Fall mu jox ma lu mu may jox loolu sax la ma joxoon sax mën naa cee ma ne ma ci ñëw xam nga Pape Abdou Fall boo jógee këram ca beneen ba noonu rek da ngay wàcc waaw wàcc Ouest Foire mu ne naa jaar fii seet sama doom ñëw ci wàll fekk muy génn ma ah, mu ne père lan la ma ne ko ah, damay wàcceel paa beeg mère mu ne ah ma ne ko ah ma ne kaamil ah, rek laay wàcc mais man lam ma jox ak paa lañ ma jox mën naa ci wàcc fukki kaamil ak juróom billaahi mënoon naa dem ba Touba jënd fa ay bernde ñëpp ñëw te du te jeex kooku loo ko deseel papam papam chaque année moom rek avant pap du papamuy gaañu papa moo ma daan jox chaque année xaru tabaski coon léegi Waly mu ngi koy def wala. jël na relais bi yàlla na sut bàyyam aw fan ñoom ak ak doomam yi Pape Abdou Fall chaque année moo may jox xar moom ak la ma cee def ak yëpp Pape Abdou Fall lay def ay soxnaam di def kooku moo tax man la sama patron la sama xarit la sama kilifa la man ku ma tudd rek am na fu ma jaar ak yow mënuma tudd nit pour intérêt te Pape Abdou Fall billahi wallahi fi may waxee yow ba ma ko gis léegi mu def un mois wala deux mois. kon réunion barki dem bi demoo woon. demoo woon dañuy rek téléphone. xam nga moo tax ñi naan xaadim day dóor xamuñu xaadim jaar suma ma doon dóor sama kër du mel ni kii du taa kon lee ma ut ay kabiyoo suuf ñu si kël ma ko mais mënumaa dem di ñaan di woyaan di indi ci koñ bi sama ngor mayu ma ko ndax dañ dañ may dëkkal fu ma dëkku comme su ma amee nag sama li nga xamante am na sama weccet sama poche ma dem ndànk ut sama camion ñëw sëkkal leen su ma amee pompe leen loolu mooy àdduna du ma dóor kenn laajal ñi ci sama xarit yi ma am yëpp ku ma ci toog diisal sama problème rek xamal ni xamal ni sonn naa boobu xamal ni loolu mënta ñàkk waaw moo tax jaare yu dama lay ñaanal nit ku baax nga di nuyu sa caméraman di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm mosu billahi mina seytaane liiru jaan mosu billahi mina seytaane liiru jaan mosu billahi mina seytaane liiru jaan yàlla na ma yàlla musal ci moom ci gauche ci droite ci ndeyjoor et le nord et le sud et le loin nu ñu koy le nord et le sud et le et le et le l'ouest ah et le l'ouest et le west ouest waaw yàlla ma ci yàlla musal ci côté yëpp. ak ak ak ñi koy jàppale. coalition xeex xaadim bi coalition xeex xaadim bi laqoo naa leen jumaay Touba jumaay Njaarim. kul Jinaat xam nga. jumaay jumaa yi nekk yi Sëñ Touba yi mas yi tabax yëpp yi Sëñ Moustapha Saliou tabax yëpp laqoo naa leen juróom-ñaari jumaa juróom fukki jumaa yi nekk Touba yëpp laqoo naa leen ko yéen coalition xeex xaadim te buñ màggalee billahi bi ma ñëwee ci jàmm ba dem ba ñëw billahi di ngeen xam ne lépp dëgg la da ngeen man rek dinaa feeñal seeni secret de ñàkk jom. ayca mu ngi noonu. mbokk détournement de cinquante millions. ah waaw ah, détournement. xanaa da ngaa amati cinquante millions yi ñii ku fi toog dañ leen audité di. dama ne ndax dañ cee ah, lekku. ñoom bi laaj nañ leen audité ñoom ñii. non da ngaa lekku rek nag xaar bokk ci mais ñoom. dañ leen audité di dañ la bokk ci bokk ci mais ñoom da nga doon tafaati nag Ama Baldé ci bokkul. bokkul mos na kat. ba non Balla nit Balla moom xam naa ne sax mos na Ah. waaw man xam naa ni moom moom xam naa ni moom mos na moom moom mosul lu ndaw sax ndax ma ponkal la moom mosul lu ndaw. Gris Bordeaux moom li ma mos moo ëpp ndax mooy président. président nandute nandi dëgg nga nandi mét naa la nandi tële jaay ne la mbooy mét yow kii maa ko xam laa illa li ma xam ci giri sax ah, ah, bu ko a Fass xamoon ah, billahi la illa ak nandi te yoo nandi nandi te tax mu yolleeku ndànk mi dinaa ñëw dëkk mbaaw di leen tuur lëndëm di leen tuur lëndëm di yor xeeram di dóor xajam nag ak seen xaji bul dog seen xaji ak ñoom sax ñoo nuroo moom ak ka ñoom mook ka des doomu nday ñu ay seex lañ ñu ne ay doomu nday lañ ay ne ay doomu kenn ki courant bi kenn ki sooyu ko. te su courant bi maasoon. <laughs> président bi. te dëkk bi nag. ah seen. soo bi ab ban gan bant la jël dóor ko ko mu daanu. aw yat xam nga courant yi courant de yëpp la ko def sa waay saa yi nag xam naa loolu la jóge ne saa yi xam nga ku doon bëgg dee nga sauvé ko mu ngi mel ni tubaab xam nga tubaab bu jigéen te bu doon lab tubaab bu jigéen bu doon lab te amul jëkkër nga sauvé ko boo xamee sax mën na laa noom nga takk nit góor nag bu la dee sauvé te te te te te sa góor mhm. fa ngay jaar bëgg ko def ko gaayen nee nañ kon nga tax ñu xaritoo dóor dóor xaritum dóor dóor rek ñoo dàqu ay nandite lañ Khadim nag yaak ñoo ma àndoon pale dangaa ñëw ci sidduñu la doong moo tax ngay sànni xeer jaare daat bu lu ma tuumaal jaara kon wax ji ba wasaana wasaana